Okay. Yeah, det är Okay. affe. Okay. Det är en affe. Okay. Yeah, det är en affe. Okay. Okay, okay, okay, okay, okay. Makida tenga na gat. Lida ki pare na burde Gene bene so di wori tar Gene nyake sa libu judu de Man lata ma dugu skula de bepute warap catégorie bu ma Ibson ne ma laabal et dans votre cas kon la bind si texte sax doyu ma carrière u rappeur ab lay ralentir ni oto bu jéggi nday doo daan masa waa jéema nu ñu yem ndax dafay dóor man damay daan gisaguma ku fi bi lu ma yem sa rapport ko coupé am owo ma xama lu dul jëbu carré yow da ngay kon boo bëggee mel ni man suyu ma ma fi lu dul rappeur yu nul dafa ko gàtt ne yow yaa ma kii namu ma dara ndax fii lépp ci maa ngi tracé sa moyen bu ma laaj ñu dil ñi fii ma teel di jàng doo bu yàgg nga toppee di ñàkk bias nga yow ak sa taxi yu ngal ba ubbee sa posi ba rob si ay tànga eh, eh, maa ngi odo pali ña ngi sappe naa ginne yow maa kita sa yaakaar kol bi mooy jinne eh, da ngay gis ko am benn sone ma fi ne man guddi gi laa jam yow yaatal ay diine tey foofu ma sax demal wax ka say nigga samay riis or dive seeralu ma seex moo tax ma jaay samay nelaw jug royante sama life ñoom dañu may clash iba jàppeewul ko dara xam na ne ñoo samay waat mën a wax lu ma sab ndax yaa tagoon fi naan wala je le KF gën a sañ def sa rapport ni Mouhamed Gandhi képp ku ma sóoru ma kil yóbbu dàggi mënoo ko bañ dinaa feesal seen banque yow rawagoo ino di ma ño di bandi iba ki te réfonctionné te disi dinaa ko pour am déet ah oui oui <laughs> more day, quoi. Ah oui, ah, oui, oui, oui. yeah, non, là, eh, ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Comme il est blague. Ah oui, oui. Ah, ah, ah, ah oui, oui, là, t'es dëpp yi taxale la ko job kon kenn du ma stop bëgg nga lu kaare dañ ko mës a nopp gi ñu rab laa la indil ko tel ma say ko fili bàyyi ma ma dem ñoom ñëpp laay nokk rob yoo dafa nooy channel. maa ki ko yeggi imité nee nañ too tar di ko nekki fag mu leer man fu ma dugg day metti bi kii la ñoom ñëpp doo fi gis ku def yeggi ay ami d'avance la yor fag seen i kuru duñ ko amee lay wër dum leen may saxay turu lii dekki boo ko bëggul di nga yàgg coole ni ko ubbi dus bi fekk papam di day fuck